Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi jafe-jafe yi problème mu kii di Aïssatou Diop Fall lañ koy daal di doore rek moom mi nga xam ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa CORED daal di nañuy dal ci kawam ci boo xam ne rek daal di nañ koy jot a amal ñaawloo ko naqarlu kàddu ya nga xam ne rek moom mii di ay Diop Fall daal di na koy yëkkati mu nekk loo xam ne luy gàkkal derub ñii di journaliste yi la fii ci réew mii di Sénégal te muy jafe-jafe yoo xam ne rek jàppoon nañ kenekat yu illégal la ci jamonoy président Sall muy ay mbir yu nga xam ne daanaka siq ak ñoom te nekkul loo xam ne lu jaar ci yoon la mu xëy jamono bi ñu toll nii commencé nag di ko nettali di ko expliquer nam demee kaaya de A à Z mbir mi nag tax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ëpp ko ñoom ñoo ëmb kuréelu journaliste yi fii ci biir réew mi dal di koy naqarlu bu baax a baax ne lépp lu ci mënti am rek secret dafa war a daal di am ci biir métier mi ba tax rek ñu daal di mbind mi pour rek fas yéene moo di ay Diop Fall beneen bi muy kàddu yoo xam ne yëkkati na ko dëkk teg ko ci kaw groupe de presse bi di wal fajiri ak ña nga xam ne rek ñoom la fa daal di tuutal sewal leen lool rawatina nag salaire ya nga xam ne daf ko daal di minimiser bu baax a baax a baax di xam ne kënikat matul dara ndaxte nekkoon na fi directrice moom mii di Aïssatou Diop Fall foofulee ca wal fajiri yi dontele nag la ñuy fay kooku ku nekk lang cay am dontele donné yi mi ngi ci moom ba jamono bi ñu toll nii nekk loo xam ne rek lu jaaduwul te y liggéey ngay dem di yóbbaale ay données ba moom mi sax muy xam ne ne kat fi mu toll nii am na si yoo xam ne mi ngi mu garder ku ci nekk ak lañ la daan fay ak ya ca daal di aju